waaye terewul jamono ji ñii di waa convergence des cadres républicains xëy naka di ci waxtaan boobaak léegi di ca fësal seen nakar ñoom ña ngay song nag elimaanu jëwrin ya kookee du keneen ku dul Ousmane Sonko mu ñu ne fàng tey ji ci xëtu ko yëglekaay bi jàpp ni convergence bi la mu bëgg daal moom mooy fexe ba askanuk Sénégal mën a mucc ci loole di Pastef Abdoulaye Diouf Sarr ak i naataangoom ñoom adopté nañ ab motion de soutien maanaam nag Diakhaté Les Échos yéenekaay moom la mu ca fasal ne nag cadre ya ñoom ñu ngay wote euh, ñu daal di libéré jommaay ci euh, loolee di loxo euh, loxoy Ousmane Sonko ndax nag jàpp nañ ni kii jiite réew mi daal lu keneen ku dul moom moomee ak Pastef les patriotes maanaam defee la ñoo ne ña ngay sàkku tamit ñu daal di amal ab bu secrétariat exécutif national bu bileek parti bu ko defee ñu def ab xayma ci liy xew waaye tamit la ca nara lalu negee ni ëllëg Abbas Fall yëkki nay kàddu tam ci tukki bi jàpp na nag ne moom mbiru tas tasar assemblée nationale la boole député gouvernement bi tam lépp bàyyiwu ca dara wax na ay kàddu yoo xam ne daal jàpp la artu way jëwrin ya maanaam ministre ya moom nag nee na fekkente ni daal assemblée nationale mu ngay def liggéeyam ànd ceeg responsabilité bu mot sëkk kon jàpp na daal ne jarul ñu koy tas benn yoon ndaxte gis na ni am nay député yoo xam ne ñoom ñu nga ca majorité bi noppi nañ ngir ànd ak gouvernement bi ci liggéey bu wér te wóor waaye tamit la mu xam ne daal moom mooy ci wet gile ci euh, dëkkandoo bi nga xam ne sax na nañu ko cee def am na lenn loo xam ne daal dootuñu ko nangu maanaam euh, yenn doxalin yoo xam ne jot nañu ko gis na ngeen ni démb ci ministre yi nag moom Abass la am leen di wax moom mooy bu ñu xaar daal Abass Fall moo xam ne daal ne batt di leen raay noonu la ko waxee cabooru ko Sud Quotidien yéenekaay justice dañu ko war a ndëppal ndëppal système ba loolee yéenekaay bi xëy ne fàng tey ji buñ koy xayma nag attekaay ba sax la yéenekaay bi jël ne ko fàng jàppaleen nag ni plateforme jubbanti daal moom nee na daal la mu bëgg moom mooy waxtaan ak askan wi xam ana rek lan mooy seen ak gis-gis ak lan la ñu war a soppi bu ko defee loole yépp ñu toog waxtaane ko xool lan la mën a jural justice Sénégal ni jëm ci kanam maanaam ay jéego réew mi yéene kaay ne na say ji rek xëy fësal loole di waa cour suprême jàpp na daal ni jamono ji jéego yu njëkk yee ña ngi koy def te daañu ko tàmbali al talaata gi ñu jëm bu ñu koy xayma bés la rek boo xam ne dialogue national ba ca lañu ko fas yéene ubbi muy ab prox ndoll boo xam ne daal bu ñu ko gisee danañu ci jaar ngir saafara jafe-jafe justice bile critique yéene kaay moom bisturi bala jël daal di rek eh, xëy dafa nag ab opération ci ab malade boo xam ne daal moom mu ngi ci jafe-jafe malade boobee daal du leneen lu dul justice jàpp na daal ne war nañu ko mën a faj saytu ko bu baax a baax xool ana lan moo ca doxul bu ko defee ñu jubbanti ko bu baax a baax xool doxalinu ko démocratie ak chantier ba na mu toll bu ñu koy xayma rek jamono ji eh, ñu toll daal yaakaar am na ca bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango le point actuel ni moom ñamu xëyatee ji moom mooy ña si woon lool laata woote waaye daal boobaak léegi kenn tegatu leen bët mu mel ni réer nañ mër furaas kenn tegatu leen gis jàpp leen daal ni ah, kii di Amadou Ba ak Ayib Daffé ñoom ba léegi kenn joxu leen daal seen ak neexal bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango loolee seetlu nañ ko ci gouvernement ngu waaye tamit amul benn poste direction stratégique boo xam ne tam jot nañ ko gis donte ñoom ñi gënoon nañu fës laata rek woteek présidentielle di jëm Amadou Ba mandataire bu Diomaye ah, bokk ca bu Ousmane Sonko moom fitam gurée daal moom moo ko yóbbee lii bokk na ci laaj ba yéenekaay bi Samba moom mi nga xam ne daal ma nga woon fépp ci plateau télé ya Ayib Daffé moom la wax ci moom moom mooy la tax sax ñu ràññee ko bokkoon na ci jaabante gu métti gi nga xam ne daal ma nga ca woon foofee ca booru ko direction générale des élections ndax ñoom ñaar ñi naka dañu leen rek euh, sacrifié maanaam teg leen tànk bokk na ci daal laaj boo xam ne bi Samba na la tribune yéene kaay nag nañu askan wa yenooti nañ rek seen ak bopp di jooy ci njëgu ko courant bile yokkute fu ko fal bile dëgg la lool sax bu ñu koy xayma ndax ca diggante fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bile diggante rek ñaari recharge yu tukkee ci junni bu ñu koy xayma daal loolee yokkuteef gis nañu ko ci naanaam la ngay sarseek la ngay consommé daal wute na lool bu ñu koy gisee rek jamono ji détail ya tax na ñu mën a gis loole yëpp askan wa des di ko yuuxoote ji ni kiliyaan yëpp ci mbiru ko weefal bile ñoom daal ne nañ euh, la ñu gis daal du leneen du daal la seen i poos yoo xam ne nga des di ca fëkk ndax tey xuteef ba métti na lool la l'observateur yi kay nañu tam wallu euh, koo gis daal ci boru bi te njog ya tàmbali naa ji ARM ñoom ñu ngi rek euh, xëy di setal seen ak der indi ab firnde ci lu waral coowal lu ni waaye l'observateur daal la mu cee xamle moom mooy gis daal luy safal ndawal mi desandi nañ di ko wër ci biir euh, marché bi parti démocratique sénégalais tam l'observateur xëy na nañu jamono ji daal ñoom ci euh, li ñu nekk ay lënc ci daal lañu ko mën a ndax ndaxte dara leerul daal ci seen ak doxalin bokk na ci daal lañu xëyate ji euh, moom partique bu pap bu soppi ñu wax ci mbiruk li di lu ëlëm askan wi ca boog l'observateur bi léegi maanaam chirurgie esthétique la nga xam daal soxna yi faral nañ di ko def jamono ji mu bokk daal ci yokk seen rawat na sax seen toogukaay jàpp bokk na ci daal jël ay pikiir def ko rek ci seen ak yaram ngir gën a taaru lool bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur bi nga xam ne nee na loole am na ay njeexital ci wàllug uh, wér-gi-yaram uh, lépp uh, li di la Soleil yi ni kaay desaat ak ñun tey ji ci agropole sud Ziguinchor Kolda Sédhiou liggéey ba nag waxtaan nañu ca kii nga xam ne daal moom mooy jëwriñ bi ko gàlloo demoon na nag nemmeeku ji yëf yëf ana fan rek la daal di toll nañu nag buñ koy xayma téeméer boo jël juróom fukk ak juróom ya ci wàllu ko liggéey ba noppe nañu ca diggante Barthélemy Diaz ak njiitu réew mi Bassirou Diomaye ga jib na ca tey ji enquête yi ni kaay xëy dëxañ ko ci xëtamu njëkk nañu nag seen ak dëkkandoo ak li nga xam ne daal pouvoir la ñeel bi lekk collectivité des nañ di ko waxtaane bokk na ci daal la projet ci ya voirie baak leneen lépp ñoom ñaar waa ëllëg ko Barthélemy Dias tam ci condamnation bi nga xam ne def nañu ko lan la njiitu réew mi fas yéene jël nigi di ko euh, na di fësal yenn ci ay mbir ndaxte élément yu njëkk ya la ñuy waxtaane daal bokk na ci ni moom moomee yoroon na daal la koppar yu takku ak téléphone am ci boruka saakam loole daal lañu ko dogale xam ne daal moom dañu ko jamate ay paaka ba noppi rek xaañ koy marto plateau bu ñu sukkandikoo suñu naataango loole daal bokk na ci la nga xam ne daal fekk nañu ko ca euh, wetam ginnaaw ba mu génnee àdduna Idrissa Seck ak doomam bi itam des nañ ci ko waxtaane moom ak trafic de drogue bile moom doomam jooje jàpp leen daal ne ñetteelu ko retour de parquet la daam moom Abdoulaye Seck ak i naataango ubbi nañ ca appel information judiciaire Aliou Cissé di kay tàggat kay Sénégal tey ji dana fësal appel liste jëm ci éliminatoire coupe république démocratique bu Congo rawatina réew ko Mauritanie Aliou Cissé nag jamono ji moom ñamu janool daal moom mooy ndaw li nga xam ne ah, mooy Chérif Ndiaye moom ko téye loolu daal waral yéenikaayam nañu bu lay dafay abal xale bi nga xam ne daal jamono ji dafa mel ni ah, dara tewu ko keneen ku dara tewul daal moom mooy kii di doomu dàngu cootu ko sunu lomb yéenikaay lañu ko fekk te ji moom war na janoo ak Gris 2 bu Fass la mu xam ne nag moom doomi Tëngéej bi le moom mooy muy taw muy naaj dana nag jàpp Gris mu nooy daal di koy teg ci suuf bu buñ ko weesoo te booru ko fas ñoom déggewuñ ko noonu ndaxte Fass Ndakaaru daal ñoom ñu ngay waajal bu baax a baax moo xam Gris 2 la Lac Rose wala boog Pape Ndoye ñu nga ca liggéey bu métti keneen ku ca liggéey moom mooy Eumeu seen mi nga xam ne moom làpp na Sa Thiès ba noppi rek daal di koy daan jàpp leen ni jamono ji ñu toll ni sunu lomb yéen kaay nag na nañu Eumeu seen donte nag jàpp nañ ni gaynde gu màgget la moom jeexalul dara ci ay ngela joom ay lii mooy lu seen i ci bésub tey jii lu Maguette Grégoire jaajëfal nañ la bu baax a baax waaye mbokk yi yéen itam di leen ñaanal ngeen jàngal ko eh, ci kaw jàmm ak salaam Grégoire mag ngi lay jaajëfal njoxante dig daje baal ci ne incha allah. yéen ndox jàmm Aïcha. jërëjëf ñu jaajëfal ko moom Grégoire Samba ngoom eh, ci lu ñeel at yéenekaay yi rawatina nag li nga xamante ni moo di xibaar yi eh, ko defee ñu woyal ko gën koo yaatal ak li nga xamante ni moo di actualité politique ak économie dañ ci ànd ak Pape Malick caam léegi léegi rek bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.